sa baay ndax Waly sekk lu mu def nga def ko da ngay toppandoo defar bëñ bii Waly Seck la njëkk a defar bëñ sax yow sa bëñ ay nit ñu ñuul ñoo la ko defal Waly sekk mi ngay toppandool ay tubaab xoolal loxo boobu loxo tubaab la gis nga photo Waly Seck def na ko bu yëg lu Waly def nga def ko yow waalee sa baay sii di jóob soo jugee nga topp ci ginnaaw waa suba teel xaw ma fajar teel dof yooyu nga xam ne xaw ma ñoo mataar suba teel koo yooyu stupide yooyu ñu lay jay ngay jayeeku sa benn bëñ boobu nga xamante ni mel ni bëñu ginax Ah, ba nga ko roccee ba léegi da nga gën a fuy gën a réew ngay tooñaate naan ceebu jaaga yow ceebu yaayu jàmbur lu sa yoon ceebu yaay waali sax ngay wax naan jaaga jaaga mooy waali mooy yaayu waali yow veree naa fekk nga bon nga yow Sidy Diop mënoo way war a noppi te bàyyi toppandoo gi gëmal sa bopp nga jël sa yoonu bopp ah yow yow yow dama la war a boros sax ko ana boros bi ana boros bi Sidy yow waalay sa baay sa baay ndax Wally Seck lu mu def nga def ko dangay toppandoo defar bëñ bii Wally Seck la njëkk a defar bëñ sax yow sa bëñ ay nit ñu ñuul ñoo la ko defal Wally sekk mi ngay toppandoo ay tubaab xoolal loxo boobu loxo tubaab la gis nga photo Wally Seck def na ko bu yëg lu Wally def nga def ko yow waalee sa baay sii di jóob soo jugee nga topp ci ginnaaw waa suba teel xaw ma fajar teel dof yooyu nga xam ne xaw ma ñoom mataar suba teel koo yooyu stupide yooyu ñu lay jay ngay jayeeku sa benn bëñ boobu nga xamante ni mel ni bëñu ginax Ah, ba nga ko roccee ba léegi da nga gën a fuy gën a reew ngay tooñaate naan ceebu jaaga yow ceebu yaayu jàmbur lu sa yoon ceebu yaay waali sax ngay wax naan jaaga jaaga mooy waali mooy yaayu waali tooñkat dëgg nga yow veree naa fekk nga waaw nit ku bon nga yow Sidy Diop mënoo way da ngaa war a noppi te bàyyi toppandoo gi gëmal sa bopp nga jël sa yoonu bopp ah yow yow veree veree yow dama la war a boros sax ko ana boros bi ana boros bi Sidy Diop bi yow waalay sa baay